taw yi Grand Yoff dal dinay taa le boobule e commune di dund ay jafe-jafe ay fan a ngi nii li ko waral mooy ndox yi jóge ci caniveau yi jóge ci réseau bu ci Arafat jaaree cité millionnaire laata moo ñëw ci marché bi jaaykat yi am ci ay jafe-jafe ndax nag seen yëngu-yëngu dafa tagga témbee marché bi gisaloo kenn te lépp looy jënd si ruq bi am na si tali bi situation bi demee da ngay ci tali bi plus de un mois ngi nii bu ku fi jaar sax da ngay rus am sax bu fi jaaroon day rus ndax laa ndax biir kër yi day day refule biir kër yi da ngay yërëm bon ci biir kër yi même ñu baaree woon benn mi. lu ni mel nag doon na danger ci askan wi waaye tamit am nañu ci ay jafe-jafe ci seen wàllu wérgu yaram ba tax ñuy xamle ne sonn nañu. actuellement nii ñu ñi nga sax ay jeunes lañ dañuy jàpp waxuma la mag yi soo poumon lay jàpp benn boo toolee fee doo mën a nooy nooy bu baax. boo xoolee fan yëpp ñun ñëpp dañaa xoolee dañ fiy jàppale chaque jour mais bu baax dañ koo dund ba nga xam ne chaque jour nii nga ciy jaare rek di dem des fois yiri yi ngay sol di julli sax da ngay tànt sax ndax li nga sol ndax set na wala set famille bi moom dafa dëkk ak yooyu la ndox yu bon ay at a ngi nii xet gu bon gi fiy jóge nag tax na ne la watunu lii dafa yàgg léegi mu def un an ñun dañu dem mujj dañu obligé tëj suñu tuyau ONAS bi di utiliser fosse septique bi chaque 15 jours dañuy woo oto fay cinq mille pour déboucher fosse bi. xam nga lii mag sax di ko xeeñtu euh, baaxul waxumala ak ay xale. yile jaaykat di ñaawlu doxali numéro bi ndax ne mënu ci dara. ba tax ñuy sàkku saafara ci ngóor gi. bi ñuy woowee autorités yi nekk fii nii maire moo si jiitu jotuñu ko ay adjoint am lañ jot dañu mënuñu ci dara. dañu sonn nag si ndox bii nii nañu ko jéem a réglé bu fekkee ñoom mënuñu ci dara état la ñuy xaar mu ñëw réglé ba yeewoo ci cité Arafat diisoo jàpp cité millionnaire ñu ngi am yaakaar ne lu ni mel dina fi jóge waaye lu ko jiitu ñu ngi fexe jële fi yi la ndox ak seeni moyen